ci néeg ba mu tëdd ba ragal fa loolu ñàkk a moo koy waral léeg-léeg nit tëdd maanaam ñu tijji ko loolu ñàkk lii moo koy waral Sëñ Tuubaa nag nee na boo dee tëdd def ñaar fukki bismillaahi rahmaani rahiim ak benn nee na doo doo doo dee dee mbetteel samba samba booy du tijji te di nga tijjiwaat ci jàmm yaa ngi dégg ñaari ñaari sekkeer baa ngi noonu bu fekkee dangay ngay jóg boo jullee suba ba noppi nga jàng ko ñetti téeméeri yoon trois cent sëñ bi nee na boo ko saxalee balaa jant bi génn bis bu ne nga def ñetti téeméeri bisimilah irrahman mm. ne di dem ba doo soxlaal kenn dara mu yor wërsëg dina la jox ci wërsëg woo xamante ne dana la doy waaw kon loolu am na solo loolu am na solo macha allah bu fekkee soxla woo kii kàddu gi ñu jàllaat ñu waa ñu jàll ci leneen rapidement ah ci ñetti simili rek ñu tëj mhm. foofu euh, bu fekkee nit ki dafa tawat tawat goo xam ni kenn xamul tawatu lan la te sonal na ko soo ko dee jàngal bisimilahi rahmaani rahim bis bu nekk nga tiim ko jàngal ko téeméeri bisimilahi rahmaani rahim fekk nga yor njàpp nag euh, tifli ko ko ñaareelu fan bi nga tiimaat ko jàngaat téeméeri bisimilahi rahmaani rahim tifli ko ko ñetteelu fan bi nga tiimaat ko jàng bisimilahi rahmaani rahim ñetti téeméer yoon muy ñetti téeméer di di ñetti fan nee na tawat gi lu mu tiis tiis yàlla mën na koo yëkkati waaw muy ñetti téeméeri bisimilahi rahmaani rahim ku koy jàngal ku tawat sunu borom dana ko génne ci fekkee tamit da ko koo bindal téeméeri yoon cent fois nga tiimaat téere bi nga bind jàng ko cent fois sunu borom mu def ko saafara di ko sangoo ak di ko naan balaa juróom-ñaari fan yi di mat moom dana yëg tan gu mat a mat gu am doole ci yaramam. Hmm. waaw beneen bi ci topp soo yëgee ni mi ngi taw nga daal di jël sa ndab daal koy dékk ci ndox moo xam ne dafa jóge ci asamaan si direct. Hmm. Euh, nga jël ndox moom nga ci 61 basmala bismillaahi rahmaani rahim boo paree nga sangoo ko da jàpp ba pare nga sangoo ko bu fekkee ku amoon ay jàngoro nga. jàngoro yépp dana ànd ak ndox mu taw mu wàcc. nawet baa ngi ñëw leen boobu. waaw bamtuwaat ko ñaata. soo yëgee ni mi ngi taw. Hmm. nga daal di wut sa leget sax moo ci gën. waaw bu ko defee nga dékk ko ci asamaan si mu a jaar ci àdduwaas jóge ci asamaan si direct. bu ko defee nga tiim ko nga jàpp ba pare tiim ko euh, daal di werd 61 bisimilah rahmaani rahim. Hmm. daal di koy tifli ci ndox mi léegi après nga sangoo ko wax nañ jàngoro ju nekk ci sa yaram. ak lu mu metti metti suñu borom dana ko teggi hmm. waaw soo yëgee ni mi ngi taw nga def loolu waaw soo yëgee ni mi ngi taw nga daal di jàng ci bisimilahi rahmaani rahim junni yoon it suñu borom waat na ci ngëneelam ak darajaam ak teddam ni du la mbugal maanaam dina la goreel ci sawara suy taw waaw nga jàng ko junni yoon junni yoon junni mooy ñaata ci kii day ànd ak faatixatul kitaab maanaam boo nee bismillahi rahmaani rahiim da nga jàng alhamdulilahi rabil alamin ba muy junni yoon nga bàyyi ba muy taw rek donc sax taw bi siwet nag nga continuer ko wax nan suñu borom waat na ci yërmande dam ak ngëneelam ni yow moom goreel na la ci sawara yooyu yëpp day lu mat a def mm-hmm. ndax euh, yonente bi sallallahu alayhi wa na ñaan bari lu jëfe nit lu ko waroon a yomb ñàkke ñaan a nee na bari na lu lu yomb nit lu ko waroon a jafe ami ñaara tax nee na ñaan ba mu mënee jëlee nit sawara yóbbu ko aljana booba la tëlewul dara. wallaahi am na solo. am na solo mu ni ba tey ku bind bismillaahi rahmaani rahiim 33. 33. takk ko ci néegam wara këram jinne du fa dugg rab du fa dugg kër ga du lakk te sunu borom dana fa wàccee yërmaande ak xéewalam ak wërsëgam. nga bind ko si fexe maas ko. waaw da koy bind rek bañ koo maas nga bind ko 33. Hmm. nga def ko téere takk ko ci seen néeg wala nga takk ko ci sa kër rab du fa dugg jinne du fa dugg kër ga du lakk. te kër ga eh. tamit dana am dépasse daal. dana bu nekk waaw. mu ni ba tey <laughs> kër ga <laughs> mu ni bisu bis bi nga xam ne moo njëkk ci weeru tam xarit. Hmm. ku ca bind téeméeri bisimilah rahmaani rahim loolu moom lu siiw la borom xam-xam yu bari dañ koy def. Hmm. nga bind nga bind lu téeméeri bisimilah irrahmaani rahim def ko saafara naan ci ak sa njaboot di ngeen fekkewaat déwén te sunu borom dina leen sàmm ci kàttanam. macha allah ba at miy delsi mu ni ba tey ku bind bisimilah irrahmaani rahim téeméer ak ñett def ko ci sa kalpe wala ci sa poset dootoo banque waaw ku bind bisimilah irrahmaani téeméer ak ñett def ko ci sa kalpe wala ci sa poset. maanaam bis bu nekk moom dafaaw nga am xaalis. Mhm. doo ko ñàkk. léegi. waaw ah. secret daa mel ni bari na li ma gis. bari na ci des mu ne ba tey sunu borom dafa waat ci ngëneelam muy li ma doon wax sànq ci Fatiha bii moom naa ko jël mu ni ba tey ku bind bisimilahi rahmaani rahim maanaam baa gi du laalanteeg siin su tooy si siin su tooy si du laalanteeg miim gi miim gi du laalanteeg laam-laam gi laam-laam gi du laalanteeg arsaxiir gi arsaxiir gi du laalanteeg laam gi laam gi du laalanteeg raa gi raa gi du laal alonki gi laalanteeg miim gi miim gi du laalanteeg alif gi alif gi du laalanteeg nuun gi du laalanteeg alif gi alif gi du laalanteeg laam gi laam gi du du laalanteeg raa gi raa gi du laalanteeg alonk gi alonk gi du laalanteeg yaa gi yaa gi du laalanteeg miim gi nga bind ko 33 nga takku ko ku ko def hmm. suñu borom dana la may maanaam saadatu daara yi xam nga saada taale mooy nga texe àdduna te àllaaxira loolu am na solo léegi mhm. li ci des dañ koy denc ba mhm. aljuma prochain incha allah ñu gën a yaatal parce que lii mhm. lii ay njariñam dafa bari te kenn du ko tënk du noonu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax am na solo boo leen bëggee dégluwaat wala seetaanaat waxtaan wi mën ngeen dem sur la page Facebook euh, de la 7TV ngeen daal di koy dégluwaat bu ko mënee bu ko defee ngeen daal di jëlaat li nga xamante ni moo di lim bi danga may jéggal rek. ayca Alassane ñu dikkaat léegi léegi ànd ak Keina ak ak Bettaaw.